suuf dafa amoon statut fii suuf dafa am nu ñu ko doon administrer ak nu muy jëriñe mais bi ci jëkk ci suuf mooy mu jëriñ askan wi ak ña fa nekk ak ña fa dëkk parce que ku nekk nag fa nga dëkk sa dëkkuwaay sa dëkkin ak na fay dëkkee sa suuf lay doon donc il faut ko ñu jëlaat problème boobu toog ci waxal ko wax nga ko parce que suñu moytuwul dama naan suuf moom ak bomba fragmentation la day tasaare day tasaare nañu moytu loo donc moo tax bi nga ko posé je pense que opposition ñëpp war nañ ko def problème réfléchir ci suuf ba ñu mën trouver une solution satisfaisante boo xam ne dana tax ki nekk ci dëkk bi man gis boppam ci dëkk bi kay ñëw di liggéeyit am na mu fa donc nan la ñuy concilier loolu c'est cette intelligence-là dont nous devons faire preuve pour concilier ñi dëkk ak ñiy ñëw pour liggéey mais suñu bëggee dooleel kii au détriment de l'autre kenn du ko nangu liggéeykat yeeg li nga ci wax noonu la c'est la même chose seeni droit CDD à vi kenn gisu ko fenn dans le cadre du code du travail et de toutes les de tous les textes pertinents muy société bi tas ak société bi def faillite ak liggéeykat bi nekk CDD muy recruter y a des textes pour ça li nga laajte lu normal la qu'on fas droit à ces textes là kooku lu normal la il faut que ñu ñu ñu d'accord ci pour que liggéeykat yi am du ñu am problème beneen bi nga ci teg nag mooy ndox su suufee soo ndox a ci tegu parce que kiy dund fi mu il am fu muy dox ak dëgg a dëkk mais ku dul naan de important su suuf ak bu ndox benn la donc nan la ñuy xoolaate politique hydraulique u Sénégal parce que du rek teen yi parce que aspect bi nga ci posé benn la mais boobu li tax ñun ñu comprendre seen xeex mën ko jàppale mooy que ni forage bi ñu defar généralement état ko defar état li mu defaree forage suñu doolee la ko defaree su fekkee même financement extérieur la dañ kaa fay su fekkee may ñu ñu ko donc premier actionnaire bi moom forage bi mooy population bi tax ñu defar ko su ñu demee bay privatiser kay yaa xayti yoon bi am ci Sénégal mooy que ni ci loolu su fekkee société la ñi ñi doon ay actionnaire ma ni su ñuy jaayee action bal ñu koy jaay keneen dañ koy jaay ñi fi bokk donc premier actionnaire yi war préempter action yi su fekkee dañuy privatiser mooy ñu fa dëkk mooy ñu moom forage bi mooy ñu tax ñu defar forage donc su fekkee privatisation boobu population yi bëgg nañ ko ma ne ñoom lañ ko war jëkk jaay parce que loolu la yoon tëral loolu la pratique yoon tëral dans ce pays donc loolu dañ ci d'accord ak yéen et on vous soutient pour ça et on soutient toutes les populations yiy xeexe noonu ak di xeex loolu yeneen question yi nga wax question yu important la en tout cas liy faj li faj mooy booloo taxaw réew mi nag gars yi dañuy bëgg sonn ci wax ju bari ji parce que dañoo bari wax naa ce pays dañuy wax rek te suñu jëf du bari suñu bëggee nit ñi jógaat ànd ak ñun ci li ñuy xeex daañu taxaw jàppale nit ñi ca la leen ñor ak la leen soxal loolu moo am solo mais soo nee nit ñi damay jóg pour faloo ko bañ follee ko ko yooyu doo am kenn parce que nit ñi nag dañoo xeex ba sonn de dañu xeex ba sonn da ngay def li leen ñor. ñu taxawal ci lela ñor donc euh, seen taxawaay lu rafet la nañu ànd nag ñun ñëpp nga xam ne li ñuy def wuutewul mën na bokk te seen bo bokk mooy li gën mooy li efficace ngir ñu liggéeyal askan en tout cas maa ngi rafetlu bu baax sa format original bi ah di bëggee seen taxawaay yow nag ñu di la gërëm di la sant fa daaneele daanale xam nga Barthélemy nga tagg mais man yow laay tagg parce que ñu mel ni yow gis nga réew day am toujours pour développement réew mi ak lu jëma réew mi day am ñoo xam ne dañuy doon ay avant-garde dañuy doon avant-garde c'est-à-dire lu ci mënta ne rek ñi ñuy xëcc la dañuy nekk ca kanam parce que gëm nañu doyloo nañu am nañu fit am nañ fulla gëm nañ li ñuy def Eh, li ñuy wax xam nañ ko te jaral na leen li nga tëdd kaso li nga tëdd police defe naa ne ñu politique 1960 ba léegi yaa leen ëpp li nga tëdd police ak kaso te defoo ko ngir yow danga nga ko def ngir askan wi moo tax yow sa jëfin ak sa présence rek dañuy interpeller ku nekk ci ñun soo su su la déggee ngay def war na la déglu pour que mu doxal. pour que yëf ci mën réussir dama wax ne lii ngeen di def mooy li war képp koo xam ne yaakaar ngeen ni war ngeen ko jàppale war ngeen ko taxaw ngeen jàppale ko lu rafet la kooku en tout cas ñun ñoo ngi leen ci encouragé te yow ñu di la gërëm di la sant mais di gërëm aussi sa mouvement ak sa plateforme waa doy na ak waa FRAPP comme ni ma la wax nag daañu waxtaan parce que li ngeen bëgg lu baax la comme que da ngeen bëgg dajale askan wi nag na ngeen nanga waxtaane ko parce que waxtaan boobu mooy tax nit ñi bokk nit ñi ñëw en tout cas maa ngi lay félicité bu baax maa ngi sant ñëpp waa doy na di sant encore une fois ñi fi ñëw